wala ma ne loomu Serigne Saliou. loo moom Serigne Saliou. wax naa la moom gën a lu <laughs> maa ngi lay ziar bu baax baax loo. yàlla na ko yàlla nangu sant def ak yi. ñu ngi am seen waxat ñu lay ziar bu baax a baax loo. yàlla na bokk te fekkee. amiin waay. Euh, di xanaa bala ñoo wax dara rek xanaa ñu ñu ñu ñu ñu ñu jàllale la ndokkeel la siyaare la suñu suñu mbokk yooyu nga xamante ni yàlla dogal na keroog ci match Sénégal bi ñu wàññi ko woon. wallaay dëgg la wallaay. ñu ñaanal leen ñoom itam ndax dafa mel ni tiisoo bi itam dal na ci kaw askanu Sénégal gépp itam. amiin amiin. ndax bu ma xoolee vidéo yi ñu ci mujj a def rek daanaka ku ko dugg rek commentaire ba ci loolu la wax di leen di leen ñaanal yàlla yërëm leen taxal leen àjjana te jégal leen. wallaay wallaay. kon yow it ñoo ngi la koy siyaare bu baax di ko siyaare askanu Sénégal gépp itam macha allah rabbi. dëgg la dëgg la. ñaan sama borom yërëm leen xaar leen àjjana. amiin amiin. xanaa rek bëggoon gannaaw yàlla dogal na wax dëgg yàlla ak fi jamono toll ak yëf yëf yëf yi te wax dëgg yàlla bi ñu mujjee déggante keroog bi match Sénégal bi gagné noonu ci saa si dama la woo. Hmm. ci nga ma xamal ne ma wax dëgg yàlla euh, ci naqar nga nekkoon ak ub tiis sax moo tax ba bi deuxième bitu ñee di égaliser sax fekkoon na la da nga jàpp ci loola. Hmm. te wax dëgg yàlla boobaak léegi ñu bari tey jii fi mu ne àdduna ñëpp a ngi topp Salam Vision waaye ñu ngi topp ABS Pro ñu ngi topp Kiki Vision. ñu ngi lay topp itam ci TikTok bi di xool mboolem say interview say jotaay ak yi nga xam ne yaa rawatina ci coupe du monde bi nga xam ci la nekk nga génn ci ay yoon ñaar ba ñett yoo xam ne leen lu ci ne la nga ca waxoon ak firnde ya daanaka ñaari match yi weesu moom gis nañ ko. kon tey jii su ma doon laaj fi mu toll nii sëñ Dame ban gis nga am ci tolluwaayu équipe bi ak tolluwaayu jamono ak gis-gisu doomu aadama yi tey jii lan ma mën a wax ma door a ñëw ci question yi nga xamante ni moom laa préparé tey pour laaj la ko. waaw nuyu Euh, yéen ci man ngeen bokk li may wax chaque jour ne waxtu wu ne man mhm. naa toog télé bu ma neex wala bu ma neex wax fa mhm. waaye nag yàlla dogal na doxewu ma noonu dëgg la waaye maa ngi leen di nuyu di leen ziare yéen ñëpp waaw affaire football bi moom mhm. waxaat ci sax du ko jar parce que waxoon naa leen ne leen Sénégal day day génn day huitième de finale day yegg quart de finale loolu mi ci YouTube bi waxoon naa leen Sénégal avant day avant coupe du monde laa leen waxoon day qualifié. boo liggéey loolu ca coupe d'Afrique ba la woon. nangam te Coupe d'Afrique ba laa leen ko wax mhm. kon loolu jërutu may nekk di ci bant mhm. euh, yaakaar naa tamit defoon nañ fi émission ci biir Salam Vision ku jeex gis ko ma ne woon Sénégal France dana ñëwaat mhm. loolu wax naa ko tamit ABS Pro en direct loolu ba ma koy wax du tey boobu Sénégal sax qualifié gul de monde dëgg kon loolu nekk ci biir ram di bamtuwaat du jar ma cay nekk di wax daal euh, en tout cas daal li nga xam ne moom laa am di ko wax di ko wax ni waar réew di leen ko ñaan Mm-hmm. Euh, mooy waxoon naa na leen après damay dem Qatar. Mm-hmm. mais loolu nag mënu gut a nekkagum ndax sëñ Cheikh sëñ Saliou moo woote woon xel ko. Mm-hmm. sëñ Moustapha moo woote suba la départ bi incha allah moo fekk ñu ne ko. kon nag euh, tànk maa ngi ko fi bàyyi di dem dara. suba xel koom laa jëmaat incha allah bu soobee yàlla ci woote bi euh, ci jàmm nekkaat ci liggéey ba rek ndax ñun ay donga ay taalibi leen. waaye nag li may wax mooy adduna may déglu fu man de nit réew ak bitim réew. Mhm. Euh, kilifa gu mag euh, moo fi waxoon ne Sénégal diwén mën naa jël coupe yëpp ba jël coupe du monde. Mhm. Euh, damay fàtte tur bi. kooku mooy Mouhidine Samba Diallo ndeysaan. waaw waaw waaw moom moomu. Mhm. borom xam-xam la nit ku baax la. kooku nitu yàlla la àdduna waxam jëm waxoon. ba ne leen dimbali jéew di doole yi. sarax boobu mi nga doog a ñëw. est kon nag fu sama kàddu jote ak bu mu di doon. nañ dimbali ñëw di doole yi dimbali. waxam jooju moo waxoon ba giñoon ko mm-hmm. maa ngi wàcc Sëñ Saaliw mm-hmm. euh, bu ko bu ko àdduna bépp defee wala li ci ëpp def ko mm-hmm. coupe du monde man sëñ Dame Lo danaa ko indi Sénégal loolu moom a lu ma ci sikk sàkkam te incha allah bi soobee yàlla ku sa bopp di jëm kaw say tànk di fiite suuf doo ci man dara hmm? loolu moom loolu moom dama koy wax àdduna di ma dikk mm-hmm. moom kilifa googu nag loolu moo xool mm-hmm. sarax boobu mi ngi doog a taxaw nañ dimbali néew ji doole mm-hmm. amul président Macky Sall amul équipe bi amul dara Macky Sénégal la ëppale wut kenn ci réew mi ñun ñëpp Sénégal la kilifa diina kilifa aada yëpp bokk réew mi ndax wax naa ba tey ne réew moom la bu doon tàkk sa alal bokk ci baa sa doom baa sa dëkk baa muy wax leen bu xale yi nekkee ci jàmm ca lan nekk sax donte hmm. jubulaa ba man di doon ñaanal ci réew mi jàmm ni doon dam bëgg sa réew bokk ci jaamu yàlla dara na kilifa diine yi kilifa aada yi sëriñ nekk te am xam-xam na nga ñaan ci match bi Sénégal ga ñëw hmm. ñaan Sénégal jël ko bul xaar ko la woo bul ko xaar ko la jox ci dërëm hmm. def ko ngir yàlla ak ñi la bëgg ak la sopp man de ci loolu laa nekk te ku ma déggal loolu lay wax. muy dëgg man nag lu ma ci man incha allah bu soobee yàlla danaa ko def danaa leen kilifa waatal. quart de finale sëñ Dame yooyu nag. Mhm. France la am ta bu naan France da leen di dóor. ah déet sëñ Dame defal ndànk nag fi ne sëñ Dame yow kon su déggee bu baax mooy mat Sénégal Angleterre bii di ñëw dimanche moom Sénégal day dóor Angleterre. non incha allahu ku dogal yàlla may woon bu ko nanguwul. Mhm. suñu borom jiitu ñu topp ci ginnaawam. Mhm. ñu fekkee ko te man ko te tal ko te wér. incha allah bu soobee yàlla Sénégal day qualifié. kon daal fi mu toll nii moom Sénégal France la ñuy wax ci quart de finale ba fi mu toll moom sarax yi la mooy dun Samba Diallo waxoon fi ne daal mooy sarax ya moom. mooy sarax yi. bu ñu ko mm-hmm. defee ñëpp def ko. Mm-hmm. du ma su boobaa rek maa indi coupe du monde incha allah. nañ dimbali ñu ngi doole. <laughs> lam waxoon mi ngi doog a lañ xewal de. Euh, samay wax de bu ma juumut li ma ci a wax yëpp. Mm-hmm. benn yoon laa fi wax. Mhm. ñu dóor Sénégal muy premier maximum coupe du monde. muy booba maa ngi xel comme dama am ci yeneen yu ma nekk lu dul loolu. Mhm. sàmmoon suñ kàddu moo tax ñu jaayante yeneen ñaari mox ya dat ca lañ cee dat ba suñ borom maa ñu ci ndam. Mhm. ndax avant coupe du monde laa ne leen dañuy waaw te nag li wóor te wóor moo koy wax sëriñu Sénégalais ak fu waay ne. nan xam ne maxub Angleterre ak Sénégal. du bal bi maxub sëriñ la beneen bi mooy. nan xam ne ndam la ci arbitre bi la ne. li mm-hmm. ku ci nii football. Mm-hmm. lu waaye mën a jàpp arbitre bi da ko jàpp. Mm-hmm. su loolu amul maa la wax lii nii ak ku ko mën di dégg. arbitre bi dana tiiral Angleterre ay penalty yoo xam ne yëfi tappale la baa mu ruus. lu waaye mën a jàpp nanga jàpp arbitre bi nañu ñaan Sénégal am ndam incha allah bu soobee yàlla. te rafet nañ ci njortu. te dañuy qualifier quart de finale incha allah war bu neexee yàlla. incha bu soobee suñu borom. waaw ah loolu de wax dëgg yàlla moom daal nam xel te def naa ne li nga wax itam askanu Sénégal gépp ñu ngi lay dégg te is na njott naa ne itam insha allah rabbi fi mu ne daanaka danañ danañ ko bàyyi xel te danañ jëf sarax sarax ya ndax nee naa Mouhidine Samba Diallo ku ko dégg la mu waxoon lépp laata muy dëdd di wane ginnaaw àdduna tey jii ñu teg suñu bët mu mel ni bëccëgu nar a kàmm lu mel ni li mu doon wax moom da ko gisoon di ko wax fi ne te nit ñi xamuñu woon li eh, kooku kooku kooku nitu yàlla la mhm. te billaahi wallaahi yàlla dong moo tax mu doon wax. wallaahi laa te man mii ngeen man mii ngeen waxal. Mm-hmm. tey na wax loo xam ne. Mm-hmm. bëgguma sax di ko wax nit ñi di jàpp ne puukare wala dara wallaahi naa si la ma waxoon. Mm-hmm. adduna bépp ngi may dégg nan ko def. bu dee nag nii di door a dimbali ko bu nu ko defee. man danaa mottali yéene jëm waxoon ne mën naa am. ba kàddam yooyee ma waxoon ne mën naa am te dugg ci woon sax ne danaa am mën naa am la wax. incha allah bu soobee yàlla danaa ñaan yàlla ruus ñu andi ko ah alhamdulilah rabbil alamin loolu de. kon loolu maa koy wax Sénégal di ma dégg. waxuma la nag ay demi-finale nag quart de finale. coupe bi nga wax. coupe bi laa la wax coupe du monde bi. kon daal moom fi mu ne. yow daay mën naa am ak ISCAC ay yooyu déedéet. coupe du monde laa la wax bu ñu defee loolu. amul ma sàll mu dara na ko ñëpp def ku am ñëw di doole rek dimbali ko te yàlla tax. bu ñu tiit Sénégal nañ jënd ji ay moyens sol ay ay ay ay ay t-shirt yori drapeau. ndax damay wax ne lii ci yàlla mi ngi mu def ci doomu aadama yi. wallaahi la ilaha illa waaw jërul nag kenn ci àdduna. Mhm. ngay bàq wala mana wala yëf yi na Sénégal tattax xol yi yëpp doon benn. daf mhm. waay ku man ñaan ñaanal ku mën a seet génneel lu tarax génneel. Mhm. ku yor allooy xànjar génneel teg ci gaz bi bind gaañu ku ne defal la nga man ngir yàlla Sénégal am waaw Sénégal bu amee ndam rek ñëpp am ndam. waaye da du dara xale yu ndaw yeeg tey doomay njëkk a ko. addina bu wàññi loo nit ki dara. Macky Sall kay wàccoon ñëpp ndax nee na mi ngi woo askanu Sénégal rawatina sëriñ yi kenn ku ci ne foo mën a nekk loo mën defal ndax Sénégal am ndam. waaw ah, kon nag jeex na ah, man daal incha allah bu soobee yàlla en tant que sénégalais may jégalu nag sama taalibe fu mu mën di ne. Mhm. muy ñu ne biir réew ak bitim réew. Mhm. Sénégal nag day réew moo xam ne daa naqaree wax. lool te nag nit ñi naan respecté sëriñ si. Mhm. te xam ne sëriñ si ci réew mi la bokk. te xam ne sëriñ si bu dul ñoom lu bari du dox. sëriñ bi tamit nag xam ne personnalité moom moo ko yor. Macky Sall bu jàppoon ci jiite réew mi ci sëriñ si lay daw dem. wér na de politicien boo ci gis moom ci àll bi ma ne ko xaalis la yor nañ xam seen bopp am personnalité xam ñooy kan am dignité ci seen bopp. mooy dëgg bul déglu ku leen xas bul déglu ku leen wax wax lu ñaaw. Mhm. yow manal li nga man mhm. wax ci coupe du monde benn yoon wax ba nga wax amul. lu mhm. tax nit ñi weddi la. parce que yow avant coupe du monde ana ña ngi doon ñaanal ne. dëgg dëgg yaa ngi doon avant coupe du monde ñu ngi gisul résultat loo xam ci coupe bi waxal loo xam ne xamoo ko tewoo ko ci xam-xam bul wax. boo ko tegee ci xam-xam mu demee neneen nga xam ne noonu la yàlla dogalee danga ban caa dogu ban caa def dara ñaan ci yàlla sun borom bi. tax ñu weddi la. fi loolu boo waxee ci coupe du monde bi yëpp ñu jël sa numéro di la ci woo mooy carte kat. Mhm. ñoo la ci yéen woo ba ngoon jot. waaye du ñuy ñaan. day mhm. nag nit nag nekk wax dëgg yàlla naan man maa dara man loolu moom. Mhm. xasuma kenn nag. wittuma xam-xamu kenn nag. dëgg ngay wax rek am ndam mhm. ngir yàlla yeneen bi dama koy yelwaan ñëpp man mhm. muy kilifa diine muy kilifa aada xeebuñu kenn ku mën a ñaan senegal am ndam def mhm. ku mën a ñaan senegal jël coupe bi def ko man moom incha allahu rabbi bu soobee yàlla ko dogalam quart de finale incha allahu rabbi la yàlla mooy bu ko nangu danaa fa yóbbu Sénégal te buñ defee sarax ya moom nga indi coupe du monde la ne am te bu nu amee France incha allah bu soobee yàlla du fi ñu leen wax dafay génn na leen soo leen di loolu de leer na moom amul sëriñ boo xam ne da ngay te bopp day jëm kaw sa tànk di féete suuf nga di ko dindi amul. Hmm? ndax bu ñu toogee ma wax la ma teg ne France da koy dugg. est-ce que. nañu def loolu. alhamdulilah rabbil alamin. jërëjëf man man xel koom jar na doon maa dem Qatar waaye demaguma nag incha allah du soobee yàlla. waaw man loolu laa doon bëgg a laaj sax man dem final ba man waaye man dematuma Qatar wax dëgg yàlla. Hmm, hmm. dëgg la de waaw ndigal de ku ci nekk moom ndax ndigal caabi la bu ëppee duub bi bi. gannaaw danga nga ne ne ci ndigal nag kon moom fi ne wax dëgg yàlla faaw ndigal loolu wàcc ba noppi ñu mën a door wax leneen wax dëgg yàlla. kon sëñ daam xanaa ñu bañ laa téye rek ci lu yàgg fi mu ne euh, kaddu yi mujj yi daal lan lay doon ginnaaw sant ak gërëm ak fi mu ne ñaanal la sama borom taxawu la te yeggali sa yéene te digg sa sa kaddu gi nga xam ne waxoon nga ko ci ñaari match yi weesu te yëpp ñu gis ci ndam. waaw amiin sama kaddu gu mujj parce que lu jéggulu samay taalibe mhm. ak ku ma sopp foo mën di mhm. ñu bëgg sëñ daam loo daa bëri ñu koy topp am na ñoo xam ne nag yàkkamtiwul lu dul kilifa juum ba nekk ca di commentaire di wax. Mhm. may wax samay taalibe ku di doon commentaire bu commentaire bu wax la bon sax jëm déglu jëm mhm. faat. bu leen lijjanti kenn lillaay wa rasuli nekk leen fi ngeen war a nekk. Mhm. yàlla liggéey suñu boroom lu dul mokk su Sénégal. nit du ma dégg ci internet man sañ daamloo ma wan xam-xam mbaa ma wax ci làmb. du am. ba adduna li tukki nag du am. Sénégal rek te dañoo xam ne ci réew leen dëkk te am na ñu ñu ciy bàyyi xel te am nañ ñu ñu ciy waxtaanal ngir ñuy génn di wax. Mhm. waaye lu dul loolu nit du ma seetaan mu xam-xam. Mhm. du ma génn ak léegi tuuguma di dataay kenn ci xam-xam. Mhm. ku ne yaa nga nekk ca la nga nekk sëriñ si dañ tàppa xol yi mu doon benn mhm. ñoo xam ne ni jàngkat yi amee ku ne jot sa oto dem di jàng ñu lay ne yaa sa bokk ñu lay fay ku ne yamal sa la mhm. nga am gi lay wara sëriñ ku mën motu bañ motu bañ baax na ku mën mhm. da nga xëy jox yi dépasse fekk suñ soxla kenn du la sonal nan wàññi coow rek te nekk ci nekk ñaan ci bi jàmm loolu rek moo ëpp solo maa ngi jéglu ñëpp di wax ñëpp maa ngi jox ñëpp dig dajee fas yéene dem xel comme incha bu soobee yàlla ci ajuma ji tool yi sëñ Moustapha Mbacke moom suñu tool yi fas yéene faa liggéeyal suñu tool yi la fa la ñu marché bi di fekk fa la ñaane fa la ñu sase bu mm-hmm. dee sëñ Tuubaa yàlla suturaal ñu sàng mbalaa sutura may ñu ndam yàlla dong lañ koy ñaan te ndam te suñu borom nag moo mën lépp mm-hmm. jërëjëf loo sant la bu baax a baax gërëm la ñaanal la sama borom taxawul la doole guddal sa fan ndax heure bu ñu la woowee nga ubbi sa antenne jox ñu ubbi say téléphone bàyyi ñu ñu laaj la lu ñu la bëgg laaj nga tontu ci sa xel ak sa njort ak sa yaakaar ak li nga wóolu ci yàlla suñu borom kon ñoo ngi ñaan sama borom doole laa taxaw doole laa sàmm gën a wéral say cër doole guddal sa fan ba mbooleem naa li nga xam ne naalal nga ko askan wi naalal ko réew mi yàlla ñu fekkee ko te ànd ko ak yow itam ci daraja yonte yàlla